sanoy moytu sa noon na bu jaañ man damaa xam lu la jàpp gisoo keroog bi ñu demee shopping. Hmm. man maa ne woon nga ji yére bi boo fàttali ko gis nga ni la jàppee. Ah, yow si jàpp man ma naan jël ko jël ko ngay dëgër ba daf la jàpp. dafa nice dafa na lii tamit xoolal na lii waaye tam na. waaye yow man benn affaire moo metti quoi yow sa photo yu rafet yi la moo doon ma ko envoyé. ah yu maa ngi envoyé dina may. envoyé non non non yii mosuma ko envoyé te dama bëgg xoolal boo nekk si biir kër gi ngay selfie xoolal di photo fu ne ngay photo ci mbedd meeg biir gàlle bi di ma ko yónnee quoi man tamit ma ci ma ciy tiitaroo di ko woon sama gars yi. yaa bëgg photo ci boppam looy tiitaroo. ah photo yi macha allah rafet na trop. Eh, da ngaa bëri affaire. da ngaa amul sañ sa chéri. am nga message. ah awala ah, awala ah, moom mooy sonal di envoyé rapidement dama. waaw mais doo ko lire. soo fee moom. Ah, awa mooy sa copine bi. nga mhm, bëgg rappel moom moom. waaw mais kii dafa mu demee noonu waaw mais kii kii du awa de. kii kan mu bind mais yow kii sa far la. far sa kii jiw moom kii xaw ma ko. non attends yow dafa mel ni gisoo de xoolal li mu bind. chéri gi dafa juum kii xaw ma ko. kii dafa juum. kii xaw ma ko chéri dafa juum. billaay xaw ma ko. kii sa far nga naan ko dafa juum gisoo lu mu bind xanaa. yow chérie da nga xamee affaire far. yow kon yow man li ma fiy ñëw ngay nekk fi di ma wax ay wax yu neex di ma raay ak di ma jéem a teg di la ak yooyu yëpp ndeket yow nekkoo ci benn dëgg da nga may nax yow. ay chérie yow xamee nga ma yooyu mën na laa. waaw bu ma ne xamee naa la yooyu waaye yow tamit bu ma ne xamee naa la yooyu lii daf dañ ma ko dañ la ko yónnee nii sama kanam ngay gis may gis nga naa may dem laa. mais chérie kii du man non baraan bu métti bi nga nekk si koñ bi nga war a baax man su ma xamoon ni yow ku ñàkk fayda nga du mën a fer non lii lii man lii mënu ma ko comprendre quoi yow may téye sa téléphone ba pare may lire say message. yow lan la bind. ki lalo la bind. kii dafa juum ay xaw sama kër moo tax dangoo liir li kii bind. man loolu moo ma jaaxal ba pare nga may jox ma lu ma yàlla. lu xew lan la. non kii kii ah, lu xew non kii du nitu dara. waaw ah, mais toi aussi. kii ay da ngay def ndànk. non kii fan la ma war yabee. kii ay ay faram ay faram di ko envoyé ay message moo ko liir di ma ko liir loo quoi waaw jël sa faar ki li mu wax xol booy ni mu bind. non faram lan. waaye yow yow de. non booy attends lii sama numéro la lan. lan mooy loolu message bi maa ko envoyé léegi. kon encore kon yéen ñaar da ngeen di génn. booy looy wax nii. ñaar da ngeen di génn yéen ñaar. non non mënu maa xaar sa non xaaral non non non non non non non non ay déglu leen ma déglu leen ma kon yéen ñaar da ngeen di génn yéen. ma seet rek situation bi. non bro bett ko ma gars yi station bi wàññi station bi. alors allo allo mais yow foo nekk wuy ma ñëwal ñëwal xoolal foo mënti nekk xam nga xoolal xoolal sous préfecture yi mbedd bi mu jàkkaarloo. sa waay xoolal xoolal xoolal. quand kër gi ngay njëkk a jot ci angle bi ñëwal foofu maa ngi foofu xool dil bi mat na ñëwal léegi léegi maa ngi lay xaar ñëwal dégg nga ok. kenn du fi ñëw lii dañ ko war a régler balaa kenn du fi ñëw. non réglé ko moo tax ma ne la bay ma cinq ni ngay def nii da koo réglé. message bi maa ko envoyé sama numéro la yaa may dégg da nga bëgg lu leer may ma tuuti. mais yow loo may envoyé message tam docteur tamit nekk ngeen que yéen mënoon nëbb seen diggante yéen ñaar yéen ñaar da ngeen di génn ñaar. man seen xaritoo yéen ñaar dama ma dégg. bëgg naa la ne la du sama numéro wala dara. da nga bëgg lu leer may ma mi minutes léegi mu leer. sa waay xoolal xam nga lan ma laa may dara. Ah. est-ce que yaa li ñuy ànd yow ndegere yoo da ngay da nga may sama kër copain laa jëm yow message bi nga ma doon envoyé la pour lan la. kon kii nga ma doon envoyé la xam nga maa kii luñ bokk depuis ñu nekk xale ba léegi ñooy ànd. ci loo ne. ci yonent bi doom nday Waly Seck yow ku la fekk yaa ngi gën a cantal. barke ñoom yonent bi man la nga boo yow. waaw mais mais nag naa la xamal. say xeetu daal rek waaw déglu ma wax rey na nit. saa bu ma la gisee nga def activité rek yaa quelque chose lu xewat. loolu dafa leer xam nga ne man yow ci dil laay dox. dafa leer léegi lii ma lay wax nag dafa sës rëkk ci sama xol bi euh, dama ko cee bëgg a génnee mais da ngay def lu gaaw benn waaw déglu rek man dafa am koo xamante ne dama doon génn ak moom euh. ba may génn ak moom sama xarit boo xamante ne ñoo màggandoo defandoo xale daal maanaam euh. léegi nag moom mu dem di génnaat ak sama sama sama copain bi te loolu du yoon léegi bu génneeg waaj dërëm seet leen kooku maa ko tippoo dama koo tippoo ba tax na duma ma ko bàyyeeg moom damaa bëgg yow nga génn ak gel bi bala li ne ci ginnaaw mooy génnaat ak gel wala defal ma loolu génnal ak gel bi numéro am laa lay jox hmm. nga envoyé ko message bu neex tas sëy laa koy wax sax wala garab yaa moo ko waaj ñu ngi nekk ñu ngi nekk buy liir message bi di dee dafa leer jox ma numéro bi 78 waaw 413 hmm. yaa ma gën a noonu cum barke ñoom yonent bi bu koy liir di wan comme ndox man rek ah, mais nag sa bopp nga ma waroon jox nga may jox wax kër copain laa jëm bi ma doon envoyé la pour la la. déglu ma ma soo gisee ma def loolu noonu kii ku ma bëgg da koy bëgg te man waa ji dama koo bëgg ñoom ñaar dañ maa romb ma xam ne moom tey jii seen ngoon dina neex moo taxoon tey ma xam ne boo ma envoyé les messages bi foofu noonu diggante bi dina yàqu pour ma mën a am place. eh waay Sam. kii samay rab da koy laaj daal. bëgg nga ma d' accord waa léegi yow yi nga def ni lan nga si jublu léegi pour yàq sama diggante ak kii. yebaate na rek li nga xam yu gàtt yi. waaye yow it kenn raw la yow nu lañ koy envoyé message nga koy envoyé. mais lu ma ci xam bu ma ci doon.